yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee ci biir weeru kooruk 2024 bi fii ci grande mosquée bu Touba suñu dernier numéro bi ñu consacré ko. waxtaan wi nga xam ne moom lañu amal euh, fii ci jumaay Tuubaa ji ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weeru koor gi mu nekk jotaay boo xam ne kilifa yu bëree bëri teewee woon nañ ko bokk na ci Serigne Modou Mamoun Bousso imam bu grande mosquée bu Touba moom nag mu santaat bu baax daayira Muxaddamatul Xidma ci taxawaay yu am solo yi waaye ndigal li nga xam ne saa su ne ñu ngi koy wéyal di ko def ca jëkk jë ca jamonoy Serigne Saliou Mbacké ba léegi ñu ànd teewlu ay kàddoom. taxawu diine ji taxawu sëñ Tuuba taxawu njaboot yi taxawu mbokk yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul taxa ak ñi mu bokkal sëriñ bi tañ bokk nekk ci euh, dëkk bi ñoo ngi leen di sant ca kàddu yooyu di leen gërëm di leen ñaan di ñaan liggéey bii nag yàlla na yàgg lool seen suñu joxam yàlla nañ yàgg nañ ko yàgg taxaw di ñaan nag lépp luñ ci jëf Sëñ Tuubaa nangu ko gërëm ko di leen xamal ne ba tey fii nga xam ne fi la koy defee ci ndigalul tàmbalee ci Cheikh Saliou ba léegi si ku fi mës a toog toogal fi Sëñ Tuubaa am nga ci joxe ci ndigal ñu ci sant desandi ba léegi ci euh, jotaay boobu la muy waxtaanu mujj wi nga xam ne amal nañ ko fii ci euh, jumaay Tuubaa ju mag ji Serigne Cheikh Aliou Mbacke moom it bokk na ci ñi nga xam ne kilifa yi ko teewe woon la moom it mu yëkkati ay kàddu yu rafet jëmale ko ci solo si nga xam ne xam-xam am na ko waaye ni nga xam ne noonu la ñu dundalee koor gi fii ci euh, jumaay Tuubaa ji rawatina ci dëkk bu sell bi di Tuubaa ñu teewlu kàddoom. bi ñuy sosoo ba léegi mat na ñaar fukki at la mu jege ko ñuy euh, toppatoo naka jekk nag am na ñu fi jiitu woon waaye nag waxtu na jamono des koy gën a dëppale ak la mu laaj rawatina foo xam ne barab boo xam ne karo yoon Muhammadu Rasulullah lu toll nii nga xam ne boo seetee Touba li fi ñëw dana mat ñeenti million fekk fi lu mat ñaari million euh, lu dayoo noonu day aaje organisation bu am solo loolu nag daayira Moukhaddamatoul Khidma ci organisation boobu lañ nekk euh, ba tax na euh, ñu ngi liggéey liggéey bu rafet ndax euh, ku dëkkaale ak sëriñ bi mooy daayira bi dëkkaale ak sëriñ Touba dëkkaale googu nag lu am solo la ndax dafay feeñ ci jikko yi ay makaarimul axlaaq koo ci gis rek dafay am ay makaarimul axlaaq ak yarbiya tarbiyatul islamiya bi ñu yor loolu moom lañ yore jumaa yi di ko di ko sàmm ndax ñi fi ñëw bari na li ci aju bari na te bu ci ne dañ ciy am digalal ka fi nekk xalif général kon ah, ñun ah, suñu teewaay fii mooy di leen gunge ci wàllu googu te saare njàngaleem Serigne Touba ah, sunu rajo yi nga xam ne moom lañ yor muy DTL muy jant bi leer gi ak Thiénière nga xam ne bii mi ngi fii bi Dakar beneen bi Dakar beneen Louga ak plateforme yi nga xam ne mi ngi ci yokku ñu teg ko ci seen disposition ñu gën a mën tasaare Euh, mbirum euh, Serigne Touba ndax euh, jamono ji comme gis nga ko seen média mooy mën a ña nekk ci village yi gën a sori ci ci Sénégal ak fu mën a ne ci àddina loo bëgg a xam daanaka ci en direct nga koy am wala ci minute bi nga xam ne fi nga tolloo rek dafay gaaw a ñëw lool jamono moo laaj loolu comité d'organisation bu grand màggal bu Touba ci njiital Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre ñoom yabaloon nañ it délégation boo xam ne ñëwoon nañ teewee jotaay bu mujj bi nga xam ne amal nañ ko ci weeru koor gi fii ci jumaay Touba ju mag ji mu nekk délégation boo xamante ni bi ñu ñëwee am nay kàddu it yoo xam ne ñoom it yëkkati nañ ko. mu jëm ci euh, diggante daayira Moukhaddamatoul Khidma ak comité d'organisation bu grand magal bu Touba nga xam ne du ñu ñaari kuréel benn lañ saa su nekk ñu ngi taxaw temm ci lépp loo xam ne day jëmale dëkk bu sell bi di Touba rawatina ci wàllum xam-xam ak organisation ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne euh, Modou Mbacké Abdoul Wadoud ci turu comité d'organisation bu grand magal bu Touba. Cheikh Bachir monsieur Abdoul Khadir mooy président bi waaye mu wut coordonnateur muy sëñ Ousmane Mbacké mu sëñ Cheikh Mbacké mu sàkkoon nag délégation boole ñu ak secrétaire am mu sëriñ Abo Mbacke ak euh, ay président commission yu bari nga xam ne ñi fi teew bu ñu doon xoolee dañuy jàpp ne comité d'organisation Màggalu Tuubaa yëpp teew nañ fi tey ndax commission bu ci nekk am na bu du sa président commission itam am na ñu leen fi représenté ñu ñëw nag ànd ci fekke si bis bi nga xam ne mooy tëj tëjte liggéey bu rëy boo xam ne mën nañu wax ne. benn banqaas bu bokk ci comité d'organisation Magal Touba muy mbooloo mu Xaddamatul Xidma te muy liggéeyandoo ak euh, waa comité organisation Magal Touba ñu ñëw fekk ci seen bés bésu tëcc bi nga xam ne di liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne ba weer yu tàmbalee ba nëgg ni ñu ngi koy dundal ci ñaari anam yi nga xam ne anam mënu ko gën a màgg ci réel weeru koor bu njëkk bi mooy bernde yi ku ne xam ne bernde ni mu toll ci suñu borom rawatina weeru koor wa luqmatan tashuddu badnal jaa'i afdalu min binaa'i alfi jaami'a kon dañuy jàpp ne liñ fi def ci bernde moom macha allah euh, kenn mënu koo xayma waxuma la bernde yi waaye saytu gi rek ak ñu koy taxawee yooyu yëpp wax dëgg yàlla di liggéey bu rëy rëy rëy rëy liggéeyal Cheikhul Khadim waaye beneen bi nga xam ne it euh, bernde gën a ko rëy muy bi toog nii di ko tëje muy jotaay xam-xam bii nga xam ne moom itam ca weer yi ba muy ba muy ba muy teeroo ba ndëgëni si ñu ngi xool euh, ay ay thèmes yoo xam ne xam nañ ne jamono laaj na ko ñu tànnit ci biir njaboot gi ñoo xam ne seen xam-xam mata na ko te mën nañ koo génne itam ñu jël leen kenn par kenn bis bu ne ñu am kuñ andi mu def waxtaan la cay war a topp ci ay laaj boo waxtaan wa jeex ñu topp ko ca bés bu njëkk ba ba fii ñu toog tey wax tëgg yàlla moom it muy dundal màggal gi dundal euh, weeru koor ci ni ko Cheikhul Khadim bëggee te mooy dundal ko ci bernde yaram yi waaye dundal ko ci bernde ruux yi. mbokk yi ci jotaay boobu lañuy ñuy desandi ba léegi euh, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ñu gën ko min ci Cheikh Abdou Bali moom it bokk na ci kilifa yi nga xam ne teewoon nañ jotaay bi nga xam ne ñu ko doon amal ci koor gi ci bés bu mujj bi mu ñaar fukki fan yeeg juróom-ñeent moom nag mu ñëwaat bu baax a baax ci ni nga xam ne noonu la xam-xam amee solo waaye ni nga xam ne noon la ñuy dundalee weeru koor gi mu méngoog na nga xam ne Cheikhul Khadim moom la ko daan dundalee ci jamono ca njaareem loole nag ñu ko wéyal fii ci uh, Touba Mbacké ñu teelu kàddu yi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. waxtaan am solo la ñoom ko def ci weeru koor bi yëpp ma tey ji la koy tëj kilifa yu bari di dikk di ko fekk si ngir delloo leen njukkal ngir jaajëfal ngir sant leen ndax li ñu nekk ak fi ci nekkee ñëpp lañ ci nekkal euh, waxtaan yi boo gisee nit ñi ni ñu koy teewloo ci ñi nga xam ne dañ ñëw ba ci biir jumaa ji nga xam ne nee ñu bis bi yàlla sàkk li fii dogee dana mat foog naa juróomi junni nit ak ñi nga xam ne ñu ngi koy topp ci plateforme yi nga xam ne am na muy xeet yu benn télévision yeeg yu mel noonu loolu day wane dayo bi nga xam ne am na ko ak njëriñ li nga xam ne amal na ko nit ñi ndax fi jamono ji toll dañoo toll jamonoy xam te nit ñi dañoo xiif xam-xam moo tax lépp loo xam ne umpoon leen wala lépp loo xam ne réer na leen moo xam ki sëñ bi la moo xam ki seen seen diine la buñ dëkkee fii loolu lépp dañ ci mën a jariñu baax a baax loolu nag moo tax ba ñëpp war a amee njukkal waa day daayira Moukhaddamatoul na bi nga xam ne mooy taxawu waxtaan yi ci ndigalul xalifa général des mourides moom Mouhamadou Mountakha ñu koy ñaanal yàlla yàgg fi loolu te wér moo tax tey njabar Sëriñ Tuubaa gépp fi la ñu doge si ñëw jaajëfal leen fekkee bis bu mujj bi ñu ñaax nit ñi rek ci ne li nga xamante ne bi solo nañ ko fi ci weeru yëpp ci ay conférence yoo xamante ne ay borom xam-xam yu mag ñoo ñoo bàyyeekoo fenn fu nekk di fekke si ko bàyyi ci xel bu baax bàyyi ci xel moo di ne gannaaw buñ ñu ko xamee ba noppi ñu jëfe ko seen kemtalaay kattan te loolu rafet na ci njort ndax ñor na leen yitteel na leen. ni ñuy dundalee weeru koor gi ci grande mosquée bu Touba ak ci dëkk bu sell bi dafa nekk lu am solo di kàddu yi Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah àndoon ak délégation bu takku ci direction général bu Hizbut Tarqiyyah ñoom it ñu ñëwoon ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci ñaar fukki fan yeeg juróom-ñeent di bis bu mujj ci koor gi ci jotaay bu am solo bi nga xam ne ñu ko doon amal ci waxtaan yi. moom Serigne Youssou Diop mu rafetluwaat bu baax a baax nga xam ne noonu la ñuy dundalee weeru koor gi ci bërëb yu wuute ci dëkk bu bi nga xam ne moom moo di Touba waaye taxawaayub daayira Muxaddamatul Xidma ñu ànd teewluy kàddoom liggéey bii nga xamante ne Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy def te muy lu tegu ci ndigal doon it lu yàgg euh, ku ne xam na ne euh, lu am njëriñ la te jeexit yi àdduna sépp xam nañ ko kon dëgg la ñun am na waar wu ñu ne muy mashrabu saafi bi nga xam ne ñoo ko ànd ak seen Muntaxa waaye ba mu àggee rek lañu xam ne ñëw teew fii it bokk na ci liggéey bi rawatina bi ñu invité nga xam ne at mu jot nii dañ ko daan ànd ak ñoom lépp lu ñu nekk ànd ñoom waaye lépp lu ñu ne it ànd kook euh, lii it day dundal rek day dundal ndax lu baax mën naa ànd ak lu baax. Euh, kon euh, ñu xam ne lu baax moom aw say la woo xam ne kenn ku ci ne matt ga nga ca yor moog sa borom fexeel boo xam ne ñoo bokk genn kilifa ñoo bokkit it fañ cosaat kon loolu rek la la demee moo tax euh, wàllu xam-xam gi dafa du bokk ci li nga xam ne liy dundal ruux ndax nit ñi euh, dañuy wax dàq koor koor dañ koy dundal dundal gi nag mooy euh, sa sa sa benn waxtu bu mu neen sa senn saa bu mu neen ci lu baax loolu la sëñ Tuubaa daan dundalee koor te it yàlla cëral ko ci may ko ci loo xam ne moo tax képp kuy kokam képp koo xam ne murit nga yaakaar sëñ Tuubaa weeru koor bu dikkee yow dundal ko mooy sa wàll ak eh, lépp lu baax loo doon def it ñu ful ko lii daal moom laa gis ne moom la mu Moukhaddamatoul Khidma di def di liggéey bu rëy boo xam ne ñu leen ci ñu ngi leen ci kañ di leen ci ndokkeel te leen ci ñaanal yàlla suñu borom gën leen taxaw. ba léegi mbokk yi ci eh, bis bu mujj bi ci weeru koor gi fii ci jumaay tubaa ju mag ji ba léegi ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewoon. bokk na ci Serigne euh, Mame Thierno ñu gën ko min ci Serigne Koso Mbacke moom Cheikh Mahmadul Muntaxa moom it tey ñëwoon euh, teewee jotaay yi nga xam ne ni moom moo fi am mu santaat bu baax baax mbooloo mi nga xam ne noonu la ñuy dundalee weeru koor gi lépp ko nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif mu nekk loo xam ne ñii di daayira Muxaddamatul Xidma at bu ñot ñu koy réussir ñu teewlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko. daayira Muxaddamatul Xidma ak bokk yëpp muy liggéey am solo bu ñu rafetlu lool lu ñu doon laaj sunu kàddu dañ koy tudde rek gàttanu loo gis rek ci bitim réew fu mel ne mag wala Madina wala feneen doo bi yankiwal ba teg ko seen loxo am solo ndax lii bu njëkk taxawaay bi eh, dañ ko daan dégg ci Makka Madina wala foofu lañ ko daan gis waaye ñu toog ba mu yàgg ci eh, jëm yi Moukhaddamatoul Khidma Sëriñ Tuubaa jëmmal ci loolee ñu daan gis te di ko xaymeem dañ ko yéene Tuubaa ñu jekk-jekk rek ñu indi ñu ko waaye mu jaarale ko ci ñoom kon dañuy sant sëriñ bi ba noppi waaye bu noppee nag ñu sant daayira Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne ñoo def ñoo sabablu ba bi seen boo dee di ji di ko taxaw di taxaw koor gi di ko taxaw di taxaw bépp liggéey boo xam ne Euh, ki fi yi xam-xam dafa am solo ak ni nga xam ne noonu lañ koy jàngalee fii ci jumaay Tuubaa mag ji ci diiru weeru koor gi ci ay thèmes yu wuute yoo xam ne dañ koy baaxee askan wi ànd ci ay boroomi xam-xam yu kawe yoo xam ne kenn ku nekk rafetlu na seeni xam-xam loole nag di kàdduy euh, Serigne Abo Kébé mi nga xam ne bokk na ci kilifa yi nga xam ne teewoon nañ euh, bis bu mujj ci weeru koor gi fii ci jumaa Tuubaa ju mag ji moom nag mu santaat baax a baax nag daayira Muxaddamatul Xidma ci ni xam ne noonu la ñuy euh, taxawoo mboolem waxtaan yi nga xam ne ñooy am ci koor gi ak ni nga xam ne noonu lañ nosee thèmes yi nga xam ne moom lañ fi développé ñu teewlu kàddu yi Serigne Abo Kébé ku dell ay ci gannaaw ak xool fi mu ne nii nii yoonu murid di dundalee weeru koor da gis ne ak coppat bu mag am na ci te ci wàll gu ne ci wàllu xaside yi fulku yi ñu ngi koy def yépp di tudd yàlla di nàmmiwaat sunu xol loolu waaye tamit ñu yor wàllu xam-xam di ko dundal ci xam-xam di jël ay darsu ak bind di ko jàngat booy xool xawaadirul murid yi yëpp mooy penc murid yëpp fi ne da ngay rek ne même doxin woowu na ci dale ko tuuba daarul Moxti daarul Minan ak penc biir Touba gi ak mu ñaan euh, monde murid bépp rek da gis ne wenn doxin woowu la loolu nag laa xar wa ngay wax ndax Sëñ Tuubaa moo ko doon doxal noonu boo demee ci minanu baaxil xadim sëñ ba sëñ Basiiru dañuy décrire sëñ Tuubaa nan la daan dundale koor ci alquran ci waaraate ci joxewu ñam ci tabe ci fàttali nit ñi euh, loolu kon bu fekkee ne dem na ba tey yoon yu yaatoon yi dafa mel ne dañuy xool rek ni ko sëñ bi daan dunde ñu ñu ñu ñu xool nu ko nu ñu ko mën a dëppaleeg jamono ba nit ñi mën cee jariñoo booy xool ci jumaa ji liñ fiy def nga xamee ne man nga ne bis bu ne ay junni ñoo fi dogoo si da nga naan kon la sëñ Basiru waxoon ca sëñ bi ni mu daan tabeek ni mu daan joxewu ñam ak lekk ak naan ci koor day mel ne jumaa ji dëggal na ko waaye noonu ngay fekk tamit jumaa ja ca Masaalikul Jinaan noonu lañ koy defee nee nañ foofa lu mat ay juróomi junni danañ ko fi def par euh, par par bis kon dafa mel ne sens su Ramadan mooy delloo la ci yàlla ak euh, sens su nga fàttaliku way ñàkk ñi ak way xiif ñi yëg ko waaye tax nga li ne ci yow nga mën a dimbale mbindeef yi dafa mel ne sens boobu murid yi bàyyi nañ ko xel te dégg nañ ko baax baax. mbokk yi bokk na ci ba léegi xibaar yi fii ci uh, jumaay Tuubaa ju mag ji nga xam ne ni ñu nosee liggéey bi muy daayira Muxaddamatul Xidma ma commité organisation bi amal na ci liggéey bu am solo boo xamante nii keroog bi uh, mën nañu sax lataay ñuy euh, tàbbi ci euh, weeru koor gi doon nañu amal ay ndaje ngir waajal li nga xam ne moom moo jëm ci koor gi lépp loo xam ne wàllum organisation la rek ñu def ci liggéey bu am solo diirub weeru koor gi bés bu yàlla sàkk loolee nag nekk na liggéey boo xam ne am nañ ci euh, ndam bu baax a baax ànd kooko mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci commission boobu ak mbooleem commission yi nga xam ne ñoo ànd ak daayira mu xadamatul xadma liggéey bu am solo bi ba léegi ci commission yooyu bokk na ci commission sociale bi nga xam ne ñoom it def nañ liggéey bu am solo ci euh, weeru koor gi nga xamante ni lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum social taxaw nañ ci bu baax a baax ndax li nga xam ne moom moo di ndimbalante ak social dafa am solo lool ci weeru koor gi rawatina ñi nga xam ne seeni loxo jotul seeni ginnaaw ak ñi nga xam ne dañu war a taxaw saa su ne ñuy mën a am ndogu te euh, seeni koppar wala seeni poos jotewu ko ngir ñu mën ko fàggul seen bopp loolee lépp commission sociale euh, bi nga xam ne moom moo nekk ci daayira Moukhaddamatoul Khidma am nañ ci taxawaay yu am solo yoo xamante nii taxaw nañ mboolem askan wi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci biir weeru koor gi mbokk yi lii mooy xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indiloon euh, tey jii nekk suñu xibaar yu mujj ci weeru koor ko 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2024 ñu santaat leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd ngeen àndoon ak ñun ci biir weeru koor gi sant bu baax mbooleem daayira Muxaddamatul Xidma tàmbalee ko ci jëwrin ji ba ci ki ci mujj ak mbooleem commission yi nga xam ne ñoom lañu ñu liggéey bi waaye sant mbooleem équipe technique bi nga xam ne ñoo nekk ci GMT TV ak képp ko xam ne jàppoon ci liggéey bi ak mbooleem organ de presse yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ak daayira Muxaddamatul Xidma site internet yi bàyyiwuñu kenn sant leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd ak ngeen àndoon ak ñun moo xam monteur yi la bawuñ kenn euh, santaat leen bu baax a baax gërëm leen dig leen daje incha allah rabbi ci yeneen xibaar yeneen jotaay yoo xam ne incha allah daañu ko amal ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñaanal ko mboolem kilifay diini yëpp ñaanal leen uh, korik jàmm di leen jéggalu di leen balaax te di leen balaax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا